ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñoo taamu Rewmi FM Dakar 97.5 di ko déglu saa su ne rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures euh, jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak euh, Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission euh, sociale toute la ville en parle daal di dalal Mamadou Mara Sarr nekk ci collectif des licenciés de l'autoroute à péage AIBD Mbour ak Serigne Fallou Fall bu collectif des licenciés de l'autoroute à péage il a Touba ñu daal di fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni euh, ñoom ñu ngi ko doon jànkonteel ci entreprise boobu boobule ak dàq giñ leen dàq te jàpp nañ ni euh, jaarul yoon wante gestion bi nga xamante ni moom moo am foofule euh, ci autoroute à péage yi daañu ko waxtaane ak suñu ñaari invité yile di Mamadou Mara Sarr ak kile di Serigne fallu Fall ñu ngi lay nuyu Serigne Fallou Fall di la dalal jàmm. waaw ah, maa lay fay bu baax baax di rafetlu aussi donc invitation bi nga xam ko. Mm-hmm. alors donc euh, di nuyu ñëpp di sant ñëpp di profité de l'occasion aussi di balu àq ñëpp puisque dañuy doog a génne ci euh, tabaski te tabaski mm-hmm. dafa baaxoo buñ ci nekkee ñu jégalante balonte àq. alors donc di nuyu euh, mbokki auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu jamono ji ñu toll. Mm-hmm. wasalaam jërëjëf. voilà Mamadou Mara Sarr yow tamit ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm nga teewal fii collectif licencié. Euh, yu euh, autoroute à péage AIBD Mbour. Euh, maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm en même temps di nuyu ñu fi nekk ñëpp te tamit di baal ñëpp ak di jéggalu tamit ci lépp di rafetlu émission bi. Mhm. en même temps vraiment c'est une fierté tamit en même temps ñëw fii nii ak def émission bi ak yéen. Mhm. kontaan nañ daal di nuyu téléspectateurs yëpp. voilà ñu ngi leen di remercier ci seen disponibilité euh, euh, Serigne Fallou Fall euh, nga bokk ci collectif des licenciés bu autoroute à illa Ila bala ñu ñëw sax li tax ngeen de collectif bi ñun dañ lay laaj lan nga doon liggéey liggéey ci autoroute à péage. ci autoroute à péage bi jërëjëf autoroute à péage bi donc maa ngi fa doon liggéey comme étant chef d'équipe. Mhm. chef d'équipe laa woon ci gaaru Touba bi nga xam ne. Euh, dafa bokk ci euh, ATT bi mooy autoroute Thiès Touba bi. parce que mhm. dafa am ñaari axe Thiès Touba ak Thiès Mbour. Mhm. ñu naan ko AIBD en même temps. donc man ci Thiès axe Thiès bi laa nekkoon précisément maa ngi nekkoon ci gaaru Touba bi nekk fa chef d'équipe. Mhm. chef d'équipe maanaam. voilà donc euh, chef d'équipe yi ñoom ñoo doon coordonné équipe yi. receveur yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci box yi di liggéey. ñun ñoo leen doon contrôlé ñooy contrôlé voies yi. ñooy def euh, aussi euh, euh, xaalis bi nga xam ne ñoom moom la ñuy liggéey ñun ñoo koy contrôler ñoo koy saytu. Mhm. ba versement ñu versé ko ba mu jaar ci yoon ñu soog a libéré. yàgg nga fa naka nga duggee ci ci ci biir entreprise. waaw entreprise bi ni ma fi duggee mooy légalement laa fa dugg franchement man awma benn attache boo xam ne ne xam naa ko Ageroute wala mhm. feneen. Mhm. parce que parfois damay dégg nit ñi naan Cheikh Tidiane Thiam moo ma dugal ci. Euh, autour bi mais ils se sont trompés puisque mm-hmm. man dama doon liggéey mm-hmm. ci euh, moment bi ñuy defar autour bi dama fa doon liggéey mm-hmm. d'abord euh, je suis venu en tant que manœuvre lañ ma jëloon mësuma liggéey Ménébar mais puisque donc bëgguma sàcc bëgguma def lu ñaaw bëgguma ñaan tamit dama préféré ma daan sama doole ayant mes mes doon liggéey ci benn ONG aussi Euh, boo programme bu cinq ans boo xam ne silk la tuddoon saving internal lending community mm-hmm. euh, mooy communauté d'épargne et de euh, communauté d'épargne et de crédit interne mm-hmm. benn ONG américaine ñu indi ko fii di ci liggéey mu concerné woon tout les douze régions du Sénégal yëpp mm-hmm. donc ñu liggéey ci pendant cinq ans mu jeex ma nekkoon en chomage am ay responsabilité mënuma toog di seetaan sama njaboot. Mhm. ma ni naa dem ci autoroute bi pour ñu jël ma. Mhm. ci lañ ma jëlee euh, Kër Mor Ndiaye lañ ma jël comme ménébar. Mhm. arrivé là-bas mu commencé liggéey ak ñoom. chinois bi nga xamante ne moo nekkoon chef de chantier bi. alors donc chinois bi moo nekkoon chef de chantier mooy bi ñuy defar. Euh, autoroute à bi benn jour. am euh, benn litige bu fa am ak meneen manœuvre yi parce que dañ doon liggéey. ba mu xaw a guddi te ciment bi des lu bëri. te bu ñu fa bàyyi Euh, manœuvre na du ñu liggéey. Mhm. bi chinois bi ñëwee mënul wax ak ñoom ci la làkkante moom anglais moo xam ne dégg naa anglais. Mhm. depuis loolu mu jël ma yóbbu ma bureau mhm. donc ma doon dox ma genre genre euh, genre interprète laa woon. foofu finalement. donc di liggéey ak moom ba ni autoroute bi jeexee. donc après nag ci la laajte ñu ne ma après sax dem naa Hainan Chine di fa liggéey. après ci lañ ma xamal ni ma. Euh, gars yi ñu ngi jël pour autoroute bi. Mhm. ma def ay démarches yu bëri pour xam fan la ñuy déposé mënu ma ko xam. dem naa Agirout deux fois. Mhm. Cheikh Tidiane Thiam en personne dem naa biroom deux fois mu ne moom xamu ko. Mhm. fan ngeen di fan ngeen di déposé. pour ñu mën leen jël pour ñu mën la jël te boobu yow yaa ngi ci biir Agirout. non boobu dëkk gu ma ngay wax ban entreprise la CRBC ñoom ñoo ñoo yoroon liggéeyu kii bi euh, tali bi. tali bi CRBC foofu laa nekkoon jeexal naa fa autoroute bi pare na il fallait ñu commencer exploitation bi maa ngi woon Henan Chine jëlaat alors donc ma préféré woon xam ni autoroute bi peut-être mooy tane fi ma nekk ma ne ma doon laajte. Mm-hmm. sama gars yi ma nekkaloon CRBS ñoom ma wax ne ma ñu jël. am na mm-hmm. boo yoo xam ne sax jot nañu jël ba pare. Mm-hmm. may laajte ma dem Agiroute trois fois. Cheikh Tidiane Thiam troisième fois bi la ma soog a expliqué carrément ne ma benn société de sous-traitance bu ñu naan Intiliman mooy jël mais du Agiroute. maintenant nag li ma mën mooy nga jox bàyyi fi sa dossier du ma wala daf ma contacter wala kenn daf ma contacter. man maa def samay démarche bu dugg biir. ba liggéey ci autoroute à bi. léegi bi ñu la jëlee ban temps nga fa duré ban année nga fa dugg euh, ban année la licenciement am 2019 2019 laa fa dugg. 2019 ñoo ngi dugg fin février 2019 lañ dugg. Mm. alors ñoo ngi fa nekk ba mois de ba 17 septembre. 17 mhm. septembre est bi ngeen dugg euh, bi ngay dugg yow par exemple amoon nga contrat wala lan lan lan ban genre contrat nga amoon. pour commencer liggéey bluff moo fa amoon bluff amoon dans la mesure où dañu dugg ñu def formation ba pare def li ci yëpp. Mhm. alors donc euh, ñu indil ñu ay ñu commencé liggéey un mois la ñu liggéey amuñu kon liggéeyuñu ci contrat. li mhm. un mois yi matee ci la ñu indil benn contrat ñu signé ko ñun ñëpp. ñu yóbbu ko ba mu yàgg ñu dellusiwaat un mois après ñu dellusiwaat ne contrat yooyu inspection du travail daf ko rejeté ndax baaxul. Mm. indil ñu yeneen contrat. Mm. ñu signé waat ñu yóbbuwaat ko quelque temps après deux mois ñu ñëwaat ne yooyu baaxul encore. Mm. indilaat ñu ñu signé ñu yóbbu ko indiwaatuñ ko. ñu topp ci man personnellement topp naa ci di leen ko laaj ñu naan ma tey suba inspection du travail ci ñoom la yéexee des choses comme ça. fi may wax donc man li ma considéré mooy ñun amuñu woon contrat donc. Mhm. dañ leen doon nax daal ndax employé boo xamante ni da liggéey ñu indi la contrat ñu yóbbu ko te ba tey gisuloo contrat boo xam ne nii inspection du travail a moom mu ne ma mu ne carrément mu ngi sama contrat dina ko indi. Mhm. inspecteur bi ne ko nag tu n'as pas le droit de garder son son euh, exemplaire contrat am jox ko mhm. mu ne après dina ma ko jox toppaat naa ko ci ba sonn jotuma ko parce que ñëpp yéen ñaata ngeen exactement. on est plus de cinq presque cinq cent employés. ñu ñu licencié ñaata ñu licencié nous plus de trente. mais actuellement. Mhm. puisque dañu licencié am na ñuy topp. Mhm. ñi nga xam ne ñoo wóolu seen bopp te defuñu dara. Mhm. ñooñu ñoo bokk ci collectif bi nous sommes treize. mais ñeneen ñi. yëg nañu ne def nañ collectif. ñu ngi mm. revendiquer suñuy droit ñu ngi dem ak dikk. mais ñoom ils n'ont pas voulu en faire partie peut-être que ñoo xam ni tax ñu def ko. Mm. mais ñun ñi nga xam ne suñu der set na. Mm. te nous détenons par devers nous des papiers yu leer yu mën a wane ne li ñuy def lu wér la donc dàqu yaa ma neex ak bëgg a dugal seeni i mbokk ak wor ak euh, def lu bon ak sàcc xaalisu jàmbur yi moo tax ñu dàq ñu. alors là. ñun ñoo bokk ci collectif bi di liggéey. Mm. après dinañ si si ñëwaat si licenciement boobule. Mamadou Mara Sarr yow tamit nga euh, nekkoon euh, ci autoroute à péage bi euh, exactement lan nga fa doon liggéey ak kañ nga fa dugg naka nga fa duggee. ok man maa ngi woon ci tronçon bu ñu naan AIBD Mbour. Mm-hmm. ñu naan AT AT ATM. Mm. AIBD Thiès Mbour. Mm. mooy tronçon boobu noonu. Mm. dama doon liggéey comme receveur. parce que man enfin laa ñëw. ñu ñëw tijji autoroute à péage boobu noonu. parce que Ila Touba yi moo njëkk. même personnel la mais dafa dem après les élections la ñu tijji. AIBD mm-hmm. Mbour te mm-hmm. boobu ba muy tijji jóge ñun ñoo ko tijji ñun nous sommes les premiers ñu doon liggéey foofu noonu quoi. receveur maanaam ñi nekk si. <laughs> ci box yi di jël xaalis bi quoi oto yi fi ñuy taxaw. fu ñuy taxaw mhm. après nga récupérer affaire yooyu noonu jël xaalis parce que boo ñëwee loolu ngay njëkk a def. Mhm. balaa ngay am promo affaire yooyu noonu quoi. Mhm. léegi nag ñun bu ñëwee loolu lañ njëkk a def doon ay receveur. waaw léegi nag ñu commencé liggéey ku ma fa yóbbu woon. c'était euh, un oncle. Euh, mm -hmm. le ministre euh, Abdoulaye Daouda Diallo. moo mm -hmm. nekkoon ministre des transports. élection yi pare euh, njëkkoon nañ ma woo depuis ci ci njëkk yi. Mm. mais je n'étais pas parti. Mm. c'est après lañ ñu woowaat après ma jël. décision ba léegi yaa ngi jàng. Euh, ba léegi maa ngi jàng di def formation. mais pare naa université. Ah, mais da nga boole en même temps di liggéey. di waaw bu ma commencé jàng wala dem liggéey bu ma jëlee année boobu noonu mu jéegu ma jàng dama dama annulé woon sama inscription au niveau de l' université maa ngi woon mhm. bu ñu ñu commencé liggéey moom bu ñu bu ñu la mhm. ñu waxoon. la ñuy la bu boo leen demee peut-être am ngeen les diplômes et tout cela vous ne serez pas doo leen des foofu noonu. ñu accepté dem mais bu ma fa demee comme kii lu mu wax maanaam ñu doon travail ci condition yu métti mhm. parce que bu ñëwee ñun ñoo tijji tronçon bi bu mhm. ñu tijji tronçon bi dara parewul woon mhm. maanaam dañoo yàkkamti woon pour maanaam commencer récupérer xaalis yi rek waaw moo tax ñi tijji ko machine yi parewul gaar yi parewul dara parewul te tamit ñu liggéey ci anam yoo xamante ne c'est pas sûr parce que des fois yow yaa fay nekk ci boxe ay guddi. ba mm. bërsëg. Mm. xamoo kuy ñëw si côté yi wala affaire yooyu. côté sécurité waaw mm. gendarme yi ñuy wax ñu fay nekk des gendarme yi dañuy nekk fii ni nga gis boxe nekk fële gendarme nekk côté bene mm-hmm. wala des fois ñoom ñu dem toog ñuy nii lii maanaam machine yi tamit moo tax moment boobu noonu ci ay ticket lañu doon liggéey. Mm-hmm. parce que parewul woon. Mm-hmm. bu pare normal. bu paree normal ay carte lay doon parce que mhm. euh, dafa am ñaari forme de péage mhm. péage bu Eiffage bi ak bu mhm. chinois yi ak bu chinois waaw dafa am dañoo wuute parce que dama am péage boo xam ne à système fermé ak péage boo xam ne à système ouvert euh, chinois yi Eiffage moom moo yor péage système fermé maanaam ñoo xamante ne gaar boo ñëw ñoom da ngay fay mais ñun booy dugg doo fay dañ lay jox carte yéen yéen si bu euh, français boobu chinois yi la ñu ngeen nekk waaw boobu ouvert la mhm. maanaam li nga daw loolu ngay fay mhm. booy dugg dañ lay jox carte mhm. carte bi ngay téye ba bi ngay wàcc péage bi ngay joxe carte bi boo joxe carte bi dafa am lecteur bi ñuy teg ci kanam lecteur bi ngay jël carte bi posé ko boo ko posé après day affiche ci écran bi euh, catégorie oto bi fu mu jógee fu mu duggee ak ñaata lay fay yaa ngi dégg loolu lay affiché après nga laaj kooku noonu fay léegi nag ci biir liggéey bi maanaam dafa am comme kii lu mu wax ay chef d'équipe ay gestionnaire ak ay mm-hmm. contrôleur mm-hmm. léegi ñoom maanaam foofu amul defuñu defuñu ko comme lu mu war a demee mm-hmm. parce que da ngay gis benn contrôleur boo xamante ne comme mel ni Cheikh Tidiane Thiam wala ñeneen ak ñeneen jël seeni rakk ñoo xamante ne amuñu benn diplôme amuñu lenn ñëw bëgg jaay affaire de gendarme suñu kaw wala affaire yooyu parce que am na loo xamante ne tamit duñu ko nangu buñ koy def buñ ñuy jéem a xam nga manipuler wala dem def affaire yooyu même bu dee dañoo jël ñu ñu dañoo di fa liggéey. Mhm. dañ jël ci ay anam yu leer parce que péage bi moomuñu ko du ñoom ñoo ko moom. mais ci yan anam yu leer. maanaam jël ay contrôleur dina. jéem ngeen di ñëw lan lañ leen wax est-ce que dañ leen signer contrat bu leer. comme wax leen carrément voilà. tënk ko mu leer ñun bu ñuy ñëw. Mhm. dañoo maanaam jël comme ni ñuy jëlee employé ci société maanaam ñi laaj ñu ay dossier dem nañ sax ba indi ay casier judiciaire ay lépp comme ku indi loolu noonu yëpp nekkul manœuvre ngay liggéey wala ak leneen. Mhm. ci entreprise ci kanam anam yu leer nga ngay liggéey comme kii lu mu la wax contrat yi noonu la demee dañoo ñëw parax parax ñi signé loola li après nga yóbbu ko ñu la sax temps pour nga jël sa contrat ngeen xool waaw nga dem xool ko liir ko affaire defu ñu ko kenn amul loolu ci biir lool bu ñu defee même maanaam banque yi ñu ñu inscrire banque atlantique dañoo forcé ñun ñëpp mhm. ñi inscrire ci banque atlantique boobu. Mhm. mooy lu mu la wax rek dañoo jël seeni mafia créer benn xam nga euh, ah, euh, sous-traitance bu fictif di ñu gérer ñoo xamante ne amuñu benn diplome ñoo xamante ne amuñu benn expérience. Mhm. ñëw naan dañuy maanaam dañuy yor gestion ak affaire. mais mais entreprise bi ngeen e-, exactement naka naka la tudd. Intellimant la tudd. Intellimant Intellimant entreprise boo xamante ne amul fenn parce que bu ñu doon xam nga bu ñëwee. Mhm. marché bu amee. Mhm. dañoo war a def normalement appel d'offre. Mhm. su traitants yi ku nekk présenté. ba mhm. am ku gagné affaire yooyu noonu. mais defuñu ko dañoo ñëw rek jël benn loo xamante ne kenn xamul kenn xamul sax lan mooy Intélimane ñu teg ko foofu noonu ñu ne ñoom ñoo yor affaire ressources humaines maanaam ñooy gérer. Euh, employés mais mais loolu naka la mën a demee entreprise boo xam ne existé wul ainsi de suite ah. ñuy jël ay nit di leen liggéeyloo ci péage bi effectivement noonu la demee parce que lan moo tax mu demee noonu à l'intérieur maanaam dañ lu ñu doon def yëpp ce n'est pas du professionnalisme maanaam ay maanaam ay nan laa koy waxee sax ay affaires yoo xamante ne maanaam ku am professionnalisme du ko def. Mm-hmm. ku am expérience du ko def. maanaam nan ngay jël ay nit di leen di nax ci ay contrat di leen di forcer maanaam pour ñoom ñun xamuñu dara ci administration moo tax ñu koy def ba pare. di sàcc suñuy xaalis ñun. léegi léegi dàq bi naka la demee exactement lan moo tax ñu jékki-jékki. waaw licencier leen dàq bi da ngeen a fauté wala. dàq bi nee nañ dañoo foote mm-hmm. ñun euh, ragaluñu loolu. parce que ci biir formation bi. Mm-hmm. dañu dañoo def ay formation Sinwaa yi ñoo ñu defal formation. ci biir formation dafa am ay règlement lu ñu lu ñuy wax ci formation yi. Mm-hmm. yoo xamante ne loolu dina am ci liggéey bi. par exemple liggéey bi ci caissière bi. dafa am ce qu'on day am ce qu'on appelle manquant ak excès mhm. loolu day am dañ koy def sax ci formation bi mhm. léegi nag chinois yi des fois dañuy naan concentrer leen ci liggéey bi ba doo leen am excès wala manquant mhm. loolu day gën a yokk sa sa promo affaire yooyu noonu mais ci loolu ci liggéey bi la bokk léegi nag ñun bu ñuy liggéey ba benn moment comme kii lu mu wax dañoo seetlu ni am na ñoo xamante ne commencé nañu résister maanaam commencé nañu teg lu metti parce que man xuloo naa foofu waaw du ma weddi xuloo naa foofu. xuloo bi lu ko indi. xuloo naa foofu ak contrôleur. Mhm. waaw lu ko indi parce que daf ma doon def loo loo xamante ne duma ko nangu. mooy lan te lu yoonam parce mhm. que boo nekkee ci ci lan ci box maanaam. kenn wóorul ñëw foofu noonu même contrôleur contrôleur xam nga lan mooy lii mhm. ñëw toog di la contrôler di la xool boo paree mu dem fi ngay verser maanaam si gestionnaire bi mu dem surveiller xool lu muy def gestionnaire bi lu muy compter xaalis bi ak leneen mm-hmm. mais amul droit fekk ma ci biir box bi naan ma compter xaalis bi. Mm-hmm. <coughs> ci biir box bi loolu amul droit. ñun xam nañ si bu mu waxee loolu ma ne ko loolu duma ko def mu na nga toog nga contrôler ma xool ma ba ma paree ñi ànd dem. Mm-hmm. fu ñu koy verser ma passe c'est mon chef d'équipe moo am droit. wax ma tëjal lii wala defal lii ma def ko. même gestionnaire bi amul droit. dafa am chef d' équipe. Mm-hmm. man ci équipe boobu laa ba kooku moo am droit def ma loolu. bu mu waxee loolu ma bëgg a ma ne ko mukk doo loolu du fi am bu la neexee nga woo chinois yi ak ñëpp ñëw ci biir loolu mu woo seen chef contrôle boobu gars yi ñëw affaire yooyu ma wax leen dëgg ñi xam ne lu ma wax. Mm-hmm. dama nekk sama droit. léegi nag ci biir loolu ñi xam ne kii nii lu muy continuer di ko def fii nii. Mm-hmm. il faut ñu jéem a ko arrêté léegi ñu am ñu ñu ciblé. ñu ñu ciblé ñooñu noonu fekk xam nga lu ministre Oumar Youm ñëw na peut-être bëgg na dugal ay nitam ay affaire yooyu noonu. xam nga xam nañu tamit am na mafia bu ñuy def ci biir affaire yooyu ay lobby ñu ne il faut ñu am ñu ñu tànn fexe lu tout pour dàkk leen. ban genre mafia. bel genre mafia maanaam comme Ageroute ak Intelliman maanaam Intelliman boobu noonu existé wul comme nu ma ko waxee fictif la Ageroute ñoom ñoo ko fa teg créé ko di dagg ci xaalis maanaam si salaire yi di ko lekk. Mm-hmm. ñoom ñoo koy def. parce que lu ñuy naan dagg nañ ko di ko dugal kees IPM ak la loolu amul dugaluñ ko fenn te tamit ñuy dagg. est-ce que li ngeen di wax ni am ngeen ci ay preuves am nañ ci ay preuves kii nii tam dem ba vérifier ci caisse sécurité ñu ne ko mosuñu participer ba pare indemnité de transport employé da ko war a am mais ñoom dañu ñu koy dagg vingt mille huit cent di ko dagg suñu salaire loolu noonu yëpp contrat yi baaxul ñu reconnaître wuñu sax Intélimane léegi loolu noonu ñu jàpp IPM bu ñuy wax kenn mosu fa feebar ba ñu faj leen. ñu ne dañuy dagg pour IPM dañuy participer alors que benn employé mosul feebar ba naan inteliman faj na ko mhm. boo feebaree yow yaay faj sa bopp comme xaalis boobu noonu ñuy dagg fan lañ koy dugal te seet vérifier nag ñu ne participer musuñu participer dara donc ñoom ñoo koy dajale plus de cent mille chaque employé gestionnaire ak lii cent mille francs la ñu leen di dagg chaque fin du mois plus de cinq cent employés mhm. combien de millions nga xamante ñoom ñoo koy séddoo ba pare boo absenté benn jour ñi dagg dix mille francs Mm-hmm. sa sa salaire ñoom maanaam dañ lañ nooj ba pare boo liggéeyee comme lu ma la doon wax sànq ni boo liggéeyee ba pare maanaam xaalis bi yow contrôleur yow. Euh, da ngay liggéey loolu employé ñëpp lañ koy def. employé ñëpp ña nekk ñëpp même ña fa des actuellement. Mm-hmm. gestionnaire mm. maanaam gestionnaire yi ñoom ñëpp lañ koy def même ñu fa des jusqu'à maintenant loolu lañ leen def ba pare ci li nga wax sànq lu tax ñoom ñi dàkk ñu quoi. Mm-hmm. Euh, ban faute la def ci lu ñu wax. Euh, am na si lu ñu wax ay non rendu de ticket. Mhm. comprendre am na fu ñu wax su catégorisation xam nga oto yi dafa am ay catégorisation catégorie un deux trois. Mhm. comprendre ci loolu laa loolu loolu la bind ci biir ci biir loolu dañoo def faute yi ñun ñëpp ñu ndiroole ay faute te kii mu ngi Touba ñun ñu ngi fii nii. Mhm. bokkuñu. ñun ñëpp ñu nduróole ay faute te tamit. ci biir faute boobu noonu la ñuy wax non rendu de ticket en tout cas ci biir box bi boo liggéeyee ba pare xaalis bi boo paree boo demee ci kaw gestionnaire bi booy compte da ngay compter xaalis bi ba pare après mu génn la ci machine bi xool la dugal sa ID sa numéro. Mm. génn la box bi nga nekkoon boo génnee box bi nag da lay wan ne ñaata oto. Mm. ñoo romb foofu noonu. Mm. ak ñaata xaalis nga liggéey. après nga versé bu manqué foofu noonu doo fa jóge te fayoo ko. bu manqué bu ëppee bu ñoom ñoom ñoo koy jël. ñoom ñoo koy jël. waaw yow daal doo laal léegi waaw léegi nag fan la ñuy wax ne ban mafia la nit mun na fa def ni même bu ne foofu noonu. peut-être am na ay. bu manqué yaay fay. bu doo fa jógee bu na bu manqué cent mille sax doo fa jóge te fayoo ko xanaa yow yaay wooyo say mbokk wala say xarit. ñi dajale ñu jox la nga fay jox la bu ëppee. ñoom ñoo koy duñ la may sax comme ça après ñu dagg ko sa salaire. wala duñ la may loolu loolu duñ la ko sax may dañ la naan nga fay ko balaa chinois yi parce que ñoom maanaam dañu naan liggéey dafa manqué ci Sénégal. Mhm. moo tax suñu salaire yi sinuwaay dañuy fay de sinuwaay ñoo ñuy fay parce que autoroute bi sinuwaay ñoo ko moom actuellement. Mhm. Mhm. léegi sinuwaay ñooy fay employé. dañuy fay lu baax. waaw dañuy fay yegg si wul si dañuy dagg ay cent mille francs ba xamante ne luy ñëw si yow nii nga xamante ne parce que dañu naan bu leen neexee ngeen jël bu leen mën ngeen parce que fii Sénégal liggéey amu fii. dafa manqué. boo leen jëlu rek seen i mu ngi fii nii to di xaar. mais leen fay lu baax. parce que gestionnaire yi ñu ngi leen di fay ay trois cent soixante ay affaires yooyu noonu. mais mm. ñi dagg leen ba ñoom ay deux cent cinquante. Mm. ñeneen ñi contrôler ay chinois yi moom mu ngi fay mais ñoom ñooy dagg ba nga xamante ne ay cent cinquante la lay. ñëwee wala ay affaires affaire waaw te tamit ngay liggéey ay heures supplémentaires ngay liggéey quatorze heures de temps huit heures ba vingt deux heures ba huit heures du matin dix heures de temps. xam nga am na heure supplémentaire huit heures heure normale huit heures de temps la. Mm-hmm. boobu nag duñ fay. dañuy exploiter maanaam employé yu nekk ci fële ci la Touba ay baadi ba léegi nii changé wul. ña fa nekk tamit ñu ngi leen di exploiter même même même réalité. même réalité ñoo fa nekk ba léegi Ila Touba ay BD Mbour. maanaam chinois yi te pourtant dañoo autoroute dafa am xaalis nit ñi. Oh, les gens payent trop cher. effectivement am xaalis. Mhm. am na xaalis ñi ñaa ngi xaalis am na foofu noonu parce que ñun lu ñuy liggéey maanaam événement bu ñëwee. Mhm. bi nga gis benn nit bu liggéey ay 1 million wala lu ko ëpp. Mhm. am na xaalis loolu am na. mais xaalis am na nañu fay employé fay leen seen ak loolu mooy yoon ñu bañ a di leen dagg seen salaire ñu koy enrichir seen bopp bu dee ñoom dañoo bëgg enrichir nañu yem ci lu ñu leen di fay ak affaire yoon ñu bàyyi employé lu ñuy parce que lu ñu loolu noonu seen ñàkk la mm-hmm. mais Cheikh Tidiane Thiam boo xamante mooy DRH Ageroute mm-hmm. nekk en complice avec Intellimane directeur Intellimane bi. Mhm. ñoom ñooy exploiter employé nekk foofu noonu ci biir Azur. pour euh, pour euh, APA Ila Touba ay AIBD Mbour. voilà Serigne Fall ñu ñëw ak yow peut-être euh, sa réalité yow tamit lan nga ñu mën a wax ci seen licenciement ba tax tey jii ngeen jàpp ne licenciement bi jaaru yoon c'est un licenciement abusif. effectivement donc voilà nga jege micro bi tuuti voilà voilà je pense que sama naataango bi toog euh, wax na ci li ci ëpp am solo moo ko mm. ciy sant bu baax a baax mm. vraiment donc leeral na lu bëree bëree bëri mais licenciement bi d'abord li may jëkk wax ne c'est abusif mm. parce que man de formation donc euh, je pense que je suis bien placé pour ça pour mën a euh, apprécier licenciement bi jaar na yoon wala jaarul yoon li may wax dama ko bëgg a teg ci yoon mais aussi dina apporter ay yu leer nañu fi ma toog ba nga gis ko ne effectivement le licenciement est abusif le licenciement est abusif dans la mesure bu njëkk. Mhm. premier point bi mooy. Mhm. nit ki boo ko jëlee di ko liggéeyloo. bu defee erreur li nga war a njëkk a def mooy demande d'explication nga ko war adressé. Mhm. bu jëlee demande d'explication nga jox ko 48 heures pour mu répondre su répondre sur la base de ce qu'il répondu nga xool ba xam il a ou il n'a pas tort. s'il yoon daf ne la nga jox ko avertissement boo ko joxee avertissement mu reprendre defaat erreur. da ko war a defaraat la même chose joxaat ko lettre d' explication demande d' explication avertiraat ko bu fekkee ne il a mm-hmm. ba trois fois ci nga am droit nag licencier ko. Mm-hmm. te boo koy licencier da nga koy bindal lettre de licenciement. Mm-hmm. mu signé ko nga ci biir lettre bi motif de licenciement yi lépp da ciy feeñ. fekk na avertissement yooyu nga ko doon jox. ci nga basé wu ba tax nga licencier ko. donc motif yi nga ko doon toppee fee day feeñaat ci lettre loolu yëpp ñoom defuñu ko. ne serait pour ça mën nañu ne donc le licenciement est abusif. parce que déjà dañoo jalgati yoon. Mhm. benn naka lañ leen dàqee da ngeen jékki-jékki. appel téléphonique. dañ leen woo. dañ lay woo téléphone man on m'a appelé le 17 pour me dire Serigne Fallou Fall ça va nii nii. tu arrêtes définitivement man leen pourquoi ñu ne ma je te reviendrai man li laa ci am. Mhm. ñëpp noonu lañ def ak ñoom mais comme yeneen gars aussi man xam-xam bi ma ci am. Mhm. ak expérience bi ma ndax ci bari maa leen mag. jot naa liggéey dans d'autres xam ne li ñu def du du yoon. parce que man su fekkoon ne def naa ni ñoon rek tey lii yëpp du am. Mm. mais man maa ci topp de sept mois de septembre laa ci topp topp ci topp ci topp ci topp ci ba heure bi ñu soog a mën a commencé nag di am ay résultats. Mm. dégg naa lu ne yóbbu nañu ma sax ñoom police parcelle. Mm. parce que bi ma leen yóbboo inspection du travail inspecteur ne ko jusqu'au moment où je vous parle ñoom say employé lañ. parce que joxoo leen lettre de notification écrite de licenciement. te tant que loolu amul il de il te lu ñuy gën di toog. weer bu dee da leen di war a fay mm-hmm. moment boobu on à deux mois d'arriéré de salaire man mm-hmm. ñeneen ñi am nañ cinq mois ñi am nañ trois mois parce que bokkuñu woon période bi ñuy dàqee mm-hmm. tu mu ne leen mu ne ko boo demee na nga leen fay seeni salaire boo leen di dàq nga dàq leen par notification boo leen dàqut nga bàyyi leen ñu liggéey mu ne d'accord na moom dàquñu mais dafa am lu mu doon seet nañ ko may bu delloo après màggal Touba bi dinañu fay ñu toog que euh, convocation bu njëkk bi mu ngi nii boo ko xoolee le le 3 10 2019 mooy première lettre bi. Mhm. bii répondre na. Mhm. ci lañ ko waxee woon loolu ne ko tant que joxu notification say employé lañu. Mhm. fay leen seen arriéré de mois. amoo droit suspendre seen salaire. boo leen di dàq nag nga jox leen notification à partir de ce moment. yoratoo la leen salaire dàq nga leen. il leur appartiendra à eux de voir ndax dañ lay topp. pour motif de licenciement bi légal na wala légalul yaa ngi dégg mais leen war a fay da yaa ngi dégg. Mhm. affaire IPRES bi ak yooyu yëpp mu ne dina ko verser ndax ñoom amoon nañu droit téye ko 6 mois effectivement. Mhm. yoon may na la ñu ko 6 mois mu warut a weesu mois. Mhm. nous sommes aujourd'hui à presque un an te dërëm dugg fa. la preuve en est que kenn ci ñun amul numéro. ñun ñi nga xam ne dañoo dàq ak ña fay liggéey laa wax de kenn amu fa des même. kenn amu de sécurité sociale te pour nga verser il faut ñu am ni nga affilier leen ñu am numéro man am boo xam ne sama boîte yi ma doon njëkk liggéey ci ONG ñoom ñoo ma mujjee versé mais mën nga comprendre. est-ce que. Mm-hmm. Mm-hmm. koo xamante ne nii man lu may wax dama koy teg fu leer. du ma mm-hmm. waxantu. parce que lii mooy li mooy li wóor. lii sama bulletin de salaire la. sama bulletin de salaire boo xoolee li ma encadré ñaata la cent quatorze mille. quatre cent quatorze mille quatre cent vingt sept. moom la ñu doon dagg par mois.

parce que yéen vérifié nga wax. man man maa ko vérifié sama vérifié naa ko vérifié naa ko sama avocat. Mm. actuellement parce que dossier bi mi ngi tribunal. du mm. travail mm. sama avocat dem na def na diligenté na benn enquête on lui a dit que effectivement xamuñu sax Intélimane. bi ñu bi ñu laajee Intélimane ku ko moom ñu ne ko Ousseynou Nango Seck. Mm-hmm. bi ñu vérifié on s' est rendu compte que Ousseynou Nango Seck mas na créé beneen entreprise sax bu ñu naan Makinews. Mm-hmm. pour dafa moment bi ñuy vérifier ñoom moom amoon na arriéré wu euh, dix huit mois yoo xam ne vérifié euh, versé lu leen. Mm-hmm. pour vous dire que ñun li ñu def lu leer la. Mm-hmm. on a bien vérifié avocat bi vérifié naa. Mm-hmm. te li ma lay wax lu wér la. pour vous dire que donc dañuy sàcc suñu xaalis. maanaam lii ñu dagg fan lañ ko jëmee. dañ koy séddoo boo ko defee cumul bi. c' plus de cinquante millions par mois. léegi ñuy takk ay jabar di fase Ousseynou Nangaw Seck ñaata jabar la fi takk fase ko ah di sol ay costume nekk ci jàmm mook njabootam ñun au moment où ñun ñu ñuy toroxal suñu suñu njaboot ñu joxe sax dépense mm-hmm. caam di politique Pikine voilà bon caam sax man bëgguma di tudd sa politique à Pikine mm-hmm. ça ne n'engage que lui mm-hmm. parce que man li ma bëgg mooy on se borne essentiellement à discuter suñuy droit daal droit moo xam na politique suñu ça ne m'intéresse pas moi je suis pas de Pikine moi je suis de su ma amee lu may wax ci politique Bambey laa koy wax mais pas Pikine donc yéen vérifier dagg Euh, jëmewu ko ci. duggul caisse de sécurité sociale caisse de sécurité sociale leneen li mooy xoolal vingt mille huit cent. Mhm. indemnité de transport. Mhm. suñu salaire lañ ko dagg boo defee cumul bi. Mhm. dañ ko dagg ci ñun alors que ñoom ñoo ñu ko waroon jox. est-ce que yoon la. ñoom ñoo leen ko waroon jox ñu dagg ko. si yéen employeur employeur boo jëlee nit ki tu lui dois une indemnité de transport. vingt mille huit cent. législation sénégalaise. code du travail moo ko wax. yow yaa ko war a jël di ko yokk ci salaire am. mais momoom daf koy dagg ci suñu salaire. di yokk ci salaire yóbbu ko fan. si moo ko moom. plus de 500 employés 20 800 20 800 c'est combien. Mm. Mm. mais mais ñi ko war a yëg yëg nañ ko. mais ci la ñu loolu nekk dañoo bëgg ñëpp yëg ko pour ñu dama bëgg ñu càmbar. Mm-hmm. autoroute bi. Mm-hmm. Omar président de la République Macky Sall. Mm-hmm. il a été victime d'injustice. tey moo ko jural mu doon président. est-ce que interpellé ngeen euh, maître Omar Youm. carrément bind ko lettre expliqué ko maître Omar interpellé nañu ko mais neexut a jot. mais dem nañu ba jour bi ñu bëggee def point de presse bi démb. Mhm. bërkee démb. Mhm. moom woote na woo suñu benn élément. ne ko carrément pour ñu surseoir day tukki mais dañuy boole ak le DG de l'AGEROUTE mhm. Ibrahima Ndiaye pour mu recevoir ñu on a refusé ñun bu ñu bëggee ku ñuy jàkkaar lool Ibrahima Ndiaye mënul nekk AGEROUTE lii di fa xew te mu ne xamu ko dara leeruñu ci mais jàpp naa ne su fe defee liggéeyam lii yëg war na ko yëg ndax mënul am son DRH de division ressources humaines bu AGEROUTE di bi moom moo ñoom ñoo copté société de sous-traitance bi nga xam ne moo yore ressources humaines bi mu nekk di def lu société boobu nekk di def lu ko neex di sàcc suñu xaalis di def lu ko neex ñoom ñu ne yëguñu ko man mënuma comprendre loolu l'autre chose mooy mm-hmm. ñoom seen rôle mooy surveiller société de sous-traitance bi. Hmm. mais au lieu de euh, de la société de sous-traitance ñun lañ doon surveiller. la preuve am nañu hmm. benn groupe WhatsApp boo xam ne ku ci mas a wax quelque chose pour lu jëm ci casse. Hmm. Cheikh Tidiane Thiam moo lay convoqué Ageroute et mën pour dàq leen ne leen bu ngeen ko bu ngeen defatee dara ñu dàq leen. ñëw na taxaw ci suñu kanam moment formation mu ne kii lu mu def maa ko def loo lu mu wax maa ko mu taxaw mu ne Ousseynou Nango Seck nii lu mu def maag ko loo lu mu wax maag ko wax waxloo moom Cheikh Tidiane Thiam wax na ko on était en formation à l'époque tey li may wax nii collègues yi ñu ngi may dégg. Mm-hmm. parce que nag nit ku nekk boo deewee yàgg sa bàmmeel. te mm-hmm. ñoom jaraluñ ma loolu. dund naa ba toll nii di tedd. Mm-hmm. am lu nekk te ñoom joxuñu ma ko. ils ne sont pas plus compétents que moi dañoo jàng ma jàng te man ji wér na ma ne résultat yi ma def ci sama jàng defuñu ko ñoom. j'en suis bu leen neexee nañu ñëw ñu indi diplôme ñu teg l'autre chose mooy. bi loolu amee nit ku jub dinañ la woo inspection du travail nga bañ a wuy ji nga bañ a dem bu la leeree na li nga nekk dëgg la da ñëw parce que inspecteur bi ñëpp la fa nekkal. Mm-hmm. lii la bëggoon vérifier mais comme xamoon na ne gis nga lii mooy dernière convocation bi mm-hmm. mm-hmm. mooy bu bi. mais convocation bi. mooy troisième bi. lettre bii ma dajiwul mooy quatrième bi. boobu ba ñëwul. ba tey ñëwul benn la ñëw gis nga bii. lii lañ bëggoon vérifier dañoo bëggoon xam ba xam entreprise bi am na registre d'employeur. est-ce que am na est-ce que am na déclaration d'établissement est-ce que am na règlement intérieur mm-hmm. DASMO ou bilan social est-ce que am na ak dernier ressource euh, reçu délivré par l'IPM l'IPRES et la caisse de sécurité sociale mm-hmm. parce que normalement bu fekkente ne mi ngi doon verser foofu war nañ ko jox ay reçu mm-hmm. xam na ne yoru ko moo tax ñëwul moo parce que lépp li ñu ko waxee société fictive la ñu ko jàppee ñun jusqu'à preuve du contraire yéen fictive ngeen ko jàppee waaw jusqu'à preuve du li muy jëfee société bu légal du doxee noonu ba pare moom il dit que def na trente ans am na trente ans d'expérience en tant que gestionnaire ressources humaines il a été même en France dans une grande boîte mm-hmm. mooy man loolu dama koy démentir ba kere mu may woon ay preuves mm-hmm. ndax man man je n'ai jamais fait une formation en gestion de ressources humaines mais j'ai travaillé en tant qu'assistant ressources humaines USAID pendant deux ans intérim laa doon assuré mm-hmm. bi sax demeure ni mu ko mag la ni mu ko mm. defee. dégg nga l'autre chose mooy IPM dañuy dagg IPM. Mm-hmm. kenn ci ñun yor amul jël amul carte IPM. bu kenn ci ñun am na quelques tierces personnes nag yu ñu doon jox ay cartes. Mm-hmm. mais man personnellement ak ñu bëri jotuñu ay carte man sama doom def na fi bëgg na fi def opération ah ma li ma yoroon bëriwul ma bëgg soxla woon yeneen deux cent mille ma laaj IPM ñu ne IPM bi génnagul moom moo ma lebal cent cinquante mille bi ma lebalee cent cinquante mille deux cent mille la ma dagg. Mm. te li may wax it naa ko kii maa ngi bulletin yi bulletin bu nekk cinquante mille cinquante mille pendant quatre fois la ko def. Mm. est loolu yoon la ci sa employé nga waroon ko jox IPM joxu ko IPM lebal ko cinquante mille. wëlbati ko sàcc mënta weesu loolu. waa ji dafa doyluwut ndax bu doylu woon li muy am doon am ci ñun chinois yi lim ñuy ñuy fay. ñoom dañ ciy jël seen wàll ba pare su yi ils payent bien. la preuve en premier mois bi ñu njëkk am bi foofu am problème ba xeex am fa. Mm-hmm. parce que billetage dañ doon fay suñ premier mois. Mm-hmm. xeex am na fa ñoom booy yi mu indi woon ak soxnaam tas moo soxnaam soosu tàggoo nañu bi mu bi indi woon pour ñu fay ñu dañoo mujj xeex moo fa mujj am parce que y' a un boy ancien militaire un jeune ancien militaire de Pikine. Mm-hmm. qui s'est battu ak Abdourahmane boo xam ne jarbaatam la. tam bi ay mbokkam rek a fa nekk. lu tax ñu ñu xeex parce que simplement on s'est rendu compte ñoom li ñu doon fay. ak li chinois yi mm. ñu jël bulletin bi dem jox ko chinois bi. chinois bi xool ko yóbbu ko ci direction générale chinois yi. Mm. keroog coow lu bëri moo am parce que chinois yi ñoom ils étaient ils tombaient des nues. Mm. parce que mënuñu imaginer li ñuy fay ñoom ak li ñuy jox. je vous assure pour te dire autant de faits yoo xamante ne nii c'est des faits. beneen bi mooy damay ñëwaat ci illégalité li tax ñu ne c'est illégal le licenciement. boo xoolee fii ñun ñëpp ñoo bokkule. Mm-hmm. lettre de licenciement ñëpp bokk les mêmes motifs. même motif. te mënul nekk parce que réalité yi amoon. ki ren AIBD. bokkut ak réalité yi am fee AIBD ñoom bi ñuy ubbi. Mm-hmm. seen machines yi doxul woon ils étaient mm-hmm. machine yi xam nga problème la ñu ba machine bi am problème ci ngay utiliser. ci ngay utiliser ñun amuñu problème boobu à teg ko ci machine bi machine bi lire ko. ne la 2500 ngay fay 4500 ngay fay wala 6000 ngay fay nga joxe 6000 ñu bës validé ko. Mhm. Euh, mu génne benn ticket benn reçu ñu jox la ticket reçu bi nga dem. reçu boobu moom mënoo koo jaay kenn parce que ñun sax sorti lañ nekkoon. Mhm. xam nga parce que entrée doo récupérer xaalis sorti rek nga mën a récupérer nga ngay gisee xaalis donc ki nekk sorti utiliser wul ticket bu muy jaay. dañ koy jox carte mu teg ñu jox ko xaalis mu dugal ci biir caméra de surveillance yaa ko tiim. Mhm. jox waa ji mu dem. kooku nu mu mën a jaayee ticket alors que nee na ma man damaa bokk ci ñi doon doon jaay ticket. donc c' est mm. leneen li li gën a flagrant mooy nee na mu ngi nii. depuis le 8 août 2019 vous mm. avez été mis à pied. Mm. le temps de permettre aux auditeurs de confirmer ou d'infirmer les graves suspicions de fraude. qui ont été révélées par les caméras de surveillance légalement posées dans les cabines afin de surveiller les éventuelles malversations. c' est dama lay woon xoolal li fiche de pointage la. Mhm. fiche de pointage bi nii. Mhm. soo ko xoolee nous sommes du dix du huit vingt six huit deux mille dix neuf. Mhm. au au neuf au vingt cinq neuf mois de septembre. donc mois de septembre la. te nee na huit août lañ ma suspendre. man liggéey naa mois de septembre ba le 17. bi bi may woo nii. ci laa gëj a liggéey mi ngi nii. xam nga coché nañ ko. xam nga loolu kon kàcc mënul weesu loolu. maa ngi tuub mais nit ki. Mhm. da ngay gëm yàlla te xam ne fii boo gëmee ragal boo gëmee yàlla yàllaay buur boo ragalee yàlla yàllaay buur ñun nag amuñu lu ñuy tiit parce que lu ñu nekk lu dëgg la. Mhm. man beneen bi mooy pour que même bu fekkoon dañoo sàcc ñun même bu fekkoon dañoo sàcc. Mhm. moom il n'a pas le droit de nous licencier xam nga lu tax. boo nee man sa kër boo ko tëjee guddi nit ñëw dugg ci kër gi sàcc boo ko jàppee boo ko yóbbu gendarmerie wala police. boo ko fa yóbbu ñu defar dossier yóbbu ko tribunal. Mhm. le juge pénal prononcé wu ci pour établir. Mhm. l' existence du vol. Mhm. parfois nga jàpp sàcc yóbbu ko ñu dem ñu. ñu xoolee ñu seetal ko ñu ne sàccul. alors parfois aussi mu sàcc. jusqu'à preuve du contraire boo ko yóbboo ba ñu egg fa présomption d'innocence lay doxee. il est coupable à moitié innocent à moitié. quelqu'un qui est coupable à moitié innocent à moitié nga xam ne mën na coupable mën na innocent. lu tax nga tëb dàq ko. te yow amoo légale bu tax nga dàq ko base juridique mais c'est faux alors il fallait porté plainte au moins les personnes ciblées. Mhm. pour vol ñu juge bi versé ci benn débat ñu établir la vol nga dàq ko ba pare sanctionné ko ñu tëj ko kaso. entreprise bu toll ni Ageroute. Mhm. ak entreprise fictive bu toll ni Intélimane nga xam ne sàcc rek la ñuy def mais loolu bu ñu ko mënul c'est parce que dañoo cuune wala nga xam ne doon nduxum dafa am ci suuf. nii la demee. voilà euh, temps bi sax bareetul quelques minutes moo ñu dese Mara Sarr ñu laaj la euh, ci seen plan de lutte naka ngeen fas yéene def pour euh, si li des si xeex bi exactement. waaw d'après lu des si xeex bi. Mm. <coughs> je pense que tàmbale nañ ko temps yi nii yëpp passé ba démb sax ñi def benn conférence de presse. Mm. avec frappe Guy Marius Sagna. Mm. xam nga réew mi dafa man lu may wax rek dafa dafa xawa jaxasoo. compliqué carrément parce que. Euh, mënuñu gis ay problème yu mel nii nii di am si dëkk bi te gaa yi duñ ci mën a wax parce que boo xoolee ñun. Mhm. ñu si gën a bëri ci ñoo xamante dañ leen dàkk maanaam ñun ay responsable ñoo ñu fa yóbbu woon. Mhm. te tamit am na ñoo xam ne dañu naan lu tax ñuy dem ci activiste yi. Mhm. pour pour joytu suñu problème. ñun problème bi bu bu mu amee. lu tax mënoo leen xeexal seen bopp. <laughs> waaw wala lu tax mënuñu ñun problème bi bu mu amee. dem nañu si responsable yi. yoo xamante ni fi ngeen war a dem yëpp dem ngeen dem nañ fa. man ñun ñun ñun ay militant APR lañu. Mhm. man militant man dam damaa milité ci APR campagne def ci sacrifice lépp. Mhm. ko man je connais tant de personnes yoo xamante ne ay leaders ñu fa nekk ba ku ma fa yóbbu sax moom laa njëkk bind message expliqué ko mais lijjanti ñu sax mais léegi dañoo dem ba gis ne. tey jii nii am na ñu fi nekk ñoo xamante ne intérêt réew mi intérêt doomu réew mi moo leen fi ta tax a mhm. bu ñu demee ba adressé ak ñoom ñi commencé ñi commencé nag di woote si suuf pour di naan ay négociation wala di jéem a baare wala kaay la ñuy waxtaan. Mhm. léegi woo nañ leen ne leen kaay la waxtaan actuellement. woo nañu bi ngeen commencé yëngu-yëngal. woo nañu am na suñu benn élément koo xamante ne ministre maître Youm. la mhm. waxtaan. nee na ko dafa nekk en voyage pour boole ñu ak directeur de la journée mhm. lundi mhm. pour ñu dem toog ak moom waxtaan ak moom mhm. fekk dóor barke démb la ci guddi fekk suba ñu ngi war a def conférence de presse bi xam nga ñoom dañuy bàyyi ba nga programmé exactement ñu jéem a la lii pour bul def nga xamante ne nga bañ a def ñu ne ko ñun dañuy continuer parce que moment bi bu ñu doon soxlaa négociation ñoom ñëwuñu si ñun léegi nag problème bi man combat bi dañ koy continuer ak FRAPP lu tax ñu dem ci ñoom. Mhm. parce que si ñoom la mun a lakkatoo maanaam pour mun a joytu suñuy problème mhm. parce que injustice boobu noonu nekk foofu noonu maanaam c'est pas pour nous kese. mais mhm. ñu fa nekk ba léegi ñu ngi koy dund ba léegi. te tamit lu pour fa nekk même réalité tamit quoi même réalité ba léegi la ñuy dund. te tamit lii nii dafa war a deñ ci Sénégal maanaam autoroute boo xamante ne Sénégal yi ñëpp ñoo ko bokk. président def ci xaalis bu bëri maanaam pour Sénégalais yi benn maanaam nit. foog ni moom moom moom appayage bi. Mm. mooy si def lu ko neex. te tamit affaire bi ku am na ndey ku amul ndey moo fa nekk ko mm. da ngay gis ñoo xamante ne ñii nii kenn du leen laal. parce que ñu leen fa indi. Mm. ñii nii ay nitu ñii lañu. ñii nii kii moo leen fa ah, indi. pourtant yow waa APR yaa fa indi APR nga eh, peut-être peut-être dañu naan aw ma wéeruwaay bu baax wala man ku ma fa indi lijjantewul loolu walla moom mooy loolu. yaa ma gin a xam. man mun naa wax ne sax ba si ñu noonu ñoom ño ma dàkk. parce que man j'avais eu un problème avec ñoom. man mhm. mun naa wax ne sax ñoom la. Mhm. mais loolu problème boobu noonu moo fi war a deñ parce que am na ñu fa nekk bu dee lu ñu wax ne loolu moo tax ñu dàkk ñu. billaahi comme péage bi yëpp kenn waru fa des man maa ko wax bu dee faute yooyu noonu la ñu wax te faute yooyu noonu ba léegi amul benn rapport bu ñu joxal ñu ne ko lii ngeen def amul benn preuve bu ñu won yow nan ngay dàkkee nit nga woo ko téléphone nga ne ko sinuwaa ñu ne nga arrêté sinuwaa yi la ñu wax te tamit faute bu gën garaaw boo mhm. xamante ne def nañ ko bu ñu dàkkee koo xamante ne moo tudd gise daf ñu woo benn par benn bëgg ñun maanaam loolu dama koy wax fii nii. Mm-hmm. bëgguñu ñu piéger. Mm-hmm. pour suba affaire bi bu génnee ñu mën a am ay preuve si ñun. Mm-hmm. xam lan la wax dafa woo kenn karke mu ne demal ci ci sec mooy directeur intérimaire bi. nga toog ak moom nga jébbalu nga jéggalu. nga avoué. ne yow yaa def yow yaa def. nga jéggalu ñu baal la comprendre nga. Mhm. billaahi lii la ñu ma woo téléphone di ma forcer. Mhm. mu ne ko demal mu ne actuellement dafa voyager après dinaa la caler rendez-vous naa demal ma woo keneen sama beneen xarit même chose ay quatre personnes ñu ne ma gise woo nañ leen pour nañ dem ci waxtaan ak moom ndax chinois yi dugg na fi génn fi. c'était pour ñu am ay bëggoon piéger bu demee. ñu commencé di wax mu enregistré ñu bu ñu enregistré affaire yooyu noonu coow bi mu mënta ja ñu teg ñu ne moo ko def. Mhm. loolu la ñu bëggoon ko def. xam nga loolu noonu ay signes yoo xamante ne ay signes njublang la ñu doon def quoi maanaam da koy wone depuis ñun on a été intelligent depuis le début comme Fallou nu mu ko wax heureusement moom moo ci doon dox parce que moom ci côté boobu la jàng ci droit moom xam na ci lu mu ci xam lu bëri peut-être ñun xamuñu ko woon mm. mais arrivé à un certain moment on a tout compris parce que bu dee vidéo yi la wax noonu noonu nañ ko génne ñun xam nañu suñu bopp xam lan la ñu fa dàkkee parce que dañoo xam ne dañoo ciblé ay personnes rek ñu ne ñii ni il faut ñu génn péage bi Mm. parce que bu ñu génnul péage bi dinañu indil problème problème nag baa ngi nii. bu dee ñoom ñame nañu feeñal daal la fa am. waaw bu dee ñame nañu. Mm. def nañu conférence de presse. Mm. ñoom nañu ñu jaakaarloo wala ñuy wax ñi indi preuve ñoom. ñuy wax ñoom ñu def conférence de presse. waaw wala ñu ñu indi preuve ñu ne ba ci tribunal ba ci prison sax ñun ñu si dara. voilà ñu bàyyi la nga tàggatoo temps bi jeex na. donc nga may ma yokk tuuti. Ah, kon tàggatoo wax ni. Mm-hmm. contrat yi nga xam ne ñoom lañu signé la ña fa nekk actuellement nii mm-hmm. donc kon euh, contrat yooyu baaxuñu lu tax baaxuñu mooy. Mhm. dañu indi ay contrat tout à fait tout toute faite. Mhm. ay contrat toute faite. Mhm. yoo xamante nii dañ ko yóbbu. d'après li ñu wane ñoom mm-hmm. nee yóbbu nañ ko inspection du travail parce que bi ñu ko indee y avait le cachet mm-hmm. et la signature de l'inspecteur du travail mm-hmm. donc travailleur dañ ko indil ñetti contrat yi rek mu signé ñetti yëpp jël benn dañ ko waroon jox mu ba mu doy ko mu soog a signé ñu soog ko yóbbu ñu def contrôle de légalité au niveau de l'inspection mais ñoom ñoo indi seen i bopp rek signé jël yóbbu donc foofu man je doute que ne loolu dama koy wax na ko ñëpp dégg et j'assume mes responsabilités cela étant nag maa ngi sant ñëpp di mm. gërëm ñëpp di mm. rafetlu vraiment encore une fois vraiment invitation bi ngeen ñu def mm. donc euh, kontaan nañ ci lool lool lool la xamal ne daal euh, le collectif des licenciés daal ñu ngi fi te incha bañuñ ci dara parce que on a projeté même d'aller barrer la route au niveau de l'autre APH bokk na suñu plan kañ ngeen ko bëgg a def jàppaguñ ko mm-hmm. mais dinañ ko euh, ba ñu def mouvement def manifestation benn oto du daw incha allah dinañ ko def. voilà dinañ dem Ageroute. def mm. manifestation dinañ dem Intélimane def Euh, manifestation fépp foo xam ne bu ñu fa defee ñëpp yëg ñu nañ fa incha allah mouvement frappe aussi dinañ fa kii ayca mi ngi noonu ñu leen di remercier bu baax a baax ki lee di Mamadou Mara Sarr ak euh, tamit euh, Serigne Fallou Fall bokk ci collectif des licenciés de l'autoroute à péage ñu doon waxtaane seeni i jafe-jafe di leen remercier yéen tamit suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nekkoon ci technique bi Léon bi Ndeye dix heures jàpp onze heures ci beneen émission beneen thème ak euh, yeneen invité émission bi tamit mën ngeen koo dégluwaat ci suñu euh, pa suñu portail internet www.rewmi.com wala ci suñu euh, chaîne YouTube mi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah.